àq dina ko dal en tant que ma na àq waa dina la dal kayit bi. bañ jëlee <laughs> ngi noonu express la woon duñ ci yàgg beneen express bi très rapidement yëg ngeen ne Cheikh Bara doon def shooting. loolu kaña. afficheel ma photo yi Ablaye Seck. ma ne ko loolu kaña. defileel ma photo yi Cheikh Bara Ndiaye da doon def shooting fi ne di Cheikh Bara ay toj ci sociaux yi nii. moom ak madame Ndiaye waaw. am na ci droit moo rafet jabar nag. Cheikh Bara ma boo rafet jabar nag. borom ma jambal jaañ saa boo ko gisee mu def émission rek daa am ko sim bu bees. <laughs> mais shooting am dafa rafet sax. kee la wax Cheikh Yérim heure boo ko gisee mu am yére bu bees def émission bu bees. Eh, bañ juree jàmm. donc shootingu Cheikh Bara yi tamit buzz la les Sénégalais ont beaucoup apprécié. surtout surtout Cheikh baara bu ànd ak soxnaam def shooting am en tout cas jël na temps am ak ni mu beetee ñen ñoo ko defal Momar ñoo ko defal. jël nga a jabar daal. Cheikh Bara ndax day waajal clip wala moom tamit lu muy waajal. Ah. moom fu ne nag mën na faa génn man ay mbiram moom dara duma ci bett ndeysaan. wala day wane état état de forme bi mu nekk wala. ak jabaram soxnaam macha allah laf cat. wala day wane complicité ak soxnaam. en tout cas sañse nañ otees nañ. j'apprécie beaucoup. même bu fekkee tissu bi du benn gis nañ. waaye couleur bi benn la ay waay mën nga topp action. non waxuma tissu bi du benn laa wax tissu bi du benn xam nga kii borode la yàlla sol. waaw waaye dafay a sol la la loo ci taamu wi. tissu kii la def jaune. jabar ji laal tase yaakaar vert xamul sax ñoom nan lañ xamee ne tey jaune laay ñëwee ñu daal di kàcc ak man. ji tase yaakaar vert la ko tase. kee beige xaw ma blanc la tase yaakaar. def nañ baax neex na ma nañ tase yaakaar bi nii ak ak a ma laf. baara tamit dafa bëgg dafa bëgg yëngal réew mi fitna woon dafa ñëwee fitna. Ah, baax na. di photo di partager Cheikh Bara lii lu ci jublu. defar ba mu baax ne ko zéro stress laa ci jublu xay na. dund loo fekkee. ay ca yàlla baax na. ñu mhm. ko ñaanal yàlla jàmm Cheikh Bara. bu fekkee daa am looy waajal tamit yàlla na sotti jërëjëf. donc dañuy jàll ci beneen point rapidement dese nañu ay sujets yu ñu war a waxtaanee donc